الرقيب الحديد في الجزيرات ما يمرى هذا سور وردوان مني وساهدي رقيب الحديد في الجزيرات ما يمرى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم bismillahi rahmaani rahim yasarul muna la daa limbal wëri man aadali ma xaaba an kulla wali jërëjëfe sëñ Tuba bokk jullit yi bokki taalibe yi noo fii ci Gabon nekk ci salle bii nga xam ne fii la ñuy defee conférence bi muy édition 2024 les traces de Cheikh Ahmadou Bamba ñu koy topp àndandoog màggalu seen caravane de Mayumba lu jiitu bis euh, Euh, lu jiitu ñuy dem maa yomb nag xam ngeen ni mooy bis bi waaye noo ngi dëkk bi sëñ Tuubaa wàccoon noo ngi dëkk bi nga xam ni ahlu badirin kiraam miin na ko noo dëkk bi nga xamante ne mbooleem ñi am cër ba ci Seydina Muhammad fii lañ daan fekk sëriñ bi ñoo ngi ci dëkk bi nga xam ni fii la yàlla joxe sëñ bi yëpp ñoo ngi ci dëkk bi nga xam ni jigéen di wut sëriñ tubaa muy Gabon réewum Gabon doon loo xam ni Euh, sëriñ bi ci boppam moo fi ñëwoon tànn tubaab bi tànn ko pour indi ko fi mu doonoon muuruwaar ñu jël ay doomu aadama sànq leen fi ku ñuy wax ñoxor Baye juuf fii lañ ko faate ku ñuy wax Mandumbe Mbóoj fii la ko tubaab bi indi woon ñu doon doonoon ay bañkat ku ñuy wax Demba Allarbe fii lañ ko indi woon Sidi Muxtaar ab naar fii lañ ko indi woon am chinois bu ñuy wax wankwang fii lañ ko indi woon ah, boo demee Côte d'Ivoire jàpp nañ fa fukki góor ah, juróom-ñaari góor dékku jomaati àlladeye susu këddati sombikulo ak antiño beneen ñu rey fa Dax Silva Félix fii lañ ko faate tubaab bi da ko tànnoon muy dëkk boo xam ne ku fii indi même bu faatul physiquement mais di nga faatu moralement faatu ci côté yëpp mu indi woon fa sunu jàmbaar je ma nekk ak Serigne Cheikh Mbengue bàyyi faalu Gabon Baye Fallou Mayumba sëñ Cheikh lan nga yëg tey bi administration bu Gabon ñëwee Sénégal ba jox sëñ bi caabi ne ko yaay tëj yomba yaa koy tijji keroog gis naa euh, nga am euh, xol bu sedd boo xamante ne nii xam naa fa nga toll ana tey ban message ngay joxe ñi nga xamante ne jóge nañ Sénégal ñu jóge ci yeneen i dëkk ñu ci saar baax sëriñ Basiru Tiib moom sëriñ Muntaxa teew te sëñ Kosor Mbàkke daan ko teewal waaye euh, mention spéciale soxna seene bu njëgeen waaye noonu laa koy bàyyi rek ziar sëñ xaadim Bousso sëñ Seexuna Bousso waaye itam sëñ Seex Xaadim Fall ñu bàyyi ko ngont mi ngay bàyyi Fall ana lan ngay wax murid di sëriñ Tuubaa sëñ Seex ma Mamor ñi ngi am mbégte bu baax xanaa fàttaliku rek ba sëñ Tuubaa di wàcc fii ci maayo ci Libreville naan yesaral yi mun naa laa daal limberweli man xaadali ma xaaba an kullu wali mu mel ni la sëñ Tuubaa waxoon moo confirmé wu tey sëñ Tuubaa ne woon na bi ma wàccee ci waaxub Libreville la ma borom fayee loo xam ne moo fàddoon wàllu yi loolee nag jotaayu tey bii ci la bokk ndax koo xam ne mos naa ñëw fii ni nga ko limee delluwaatoo woo say cosaan sëñ Tuubaa rek te ñëw Gabon ay ñooñam di dellusi di topp ay jaar-jaaram muy doon ndam ci ñoom la waxoon maam seex ne ko maam Cheikh tukki bi yàgg na waaye saalituma loolee moo am tey loole moo gën di feeñ tey tey jii fii nu daje ci libre Libreville sëñ Muntaxa yeble sëñ Basa ngi nii toog soxna Bali yebal fi Cheikh Mamadan ak njaboot gi nga xam ni ñoom ñoo ñëw teew fi suñ biir ànd ak sëñ Cheikh Khadim Fall seen taalibe bi bii ñëw fi ndax bis bi kenn ku ne xam ne ni mooy ngontu maam Cheikh Fall waaye mooy cérémonie officielle bi kon daal euh, tey maam Mor li ma yëg yéeme na lool waaye nag euh, maanaam day dadi sëñ maam Mor maanaam daf di murid yi ñoom seen bopp ñi fi ñëw seen saga andiwu leen fi ndax borom simaamul wala asila de laay fi yeddi moo woomat ay taalibeem andi leen Gabon te ñoom buñ fi ñëwee ku fi jóge mbeg rek ak pas-pas bu dolliku ak fa nga yemoon ci sëñ bi nga gën a yokku rek bu ñuy del loolu la ñuy yóbbaale waat sëñ Mamoon Baye sëñ Cheikh mu mel ni suba dinañ dem maa yomba waaw boo ma doon euh, xaymaal yomba ak euh, fi nga xamante ne fi lañ nekk moo fi lañ nekk mm-hmm. ci ay kilomètres waaw euh, nan la nan la toll ak wax ko murid yi ba nu xam ni mm-hmm. ñoo ngi jëm bërëb bu sensible mm-hmm. waaye noo ngi jëm ci bërëb bu jafe bu difficile sëñ Cheikh Mayumba xam nga ni mamoor dëkk la boo xam ni dëkk bu sori la Libreville gi ñu nekk Libreville ak Mayumba estimé nañ ko à huit cent dix neuf kilomètres ci jamono ji waaye jamono jëf sëñ Tuubaa nekk na nga xam ne gaal amu fi oto amu fi dox tànk ngay mën a doxee te foore bi mënoo jajaar ak tànk sëñ Tuubaa ñu koy jaarale ci ay gaali géej di ko joow jëmee ko Mayumba jooja jamono topp ak moom laguwe bi ba dem ci océan Atlantique topp ak moom océan Atlantique ba dem ak moom ci ndox mi naan la bañoo door ko yóbbu Mayumba defal ko séquestration juróomi at ñu tëj ko ci Mayumba yoo xam ku yàlla bind xamoo sëñ Touba nekk Sénégal foofee sëñ ba nekk fa def fa ay ndam bañ naan ko yàlla gabon nee na foofee ma mel ni ab jant foofee lañ jëm suba waaye nag maam moor li ci yees mooy président wu gabon bi nga xam mooy Oligui nga xam ni moom euh, ku bëgg yoonu murid la ku ko xam la moom ci boppam moom ministre des affaires étrangères dañoo waxtaan ak seen gouvernement ñu boole ñu ak ministre de tourisme mu ñëw seet sëñ Mountakha Touba Mayumba gën jëm caabi dëkk ba sëñ Muntaxa lañ ñëw jox si ko Touba mu jox ñu ànd ak moom nar a ubbil suñu bopp bu ñu demee Mayomba kon daal looloo ci yees ministre bi nag nee mag ñuy xaar ca Baie-de-Roi su talibé monté montagne seen ci foofee sëñ Touba am jumaa ju mag ja war faa ñu yoon wi ñu door a tegu ci yoon yi Maam Mor suba jërëjëf Fati dégg nga juróomi wi at ya ca la mel ni jant foofa ca Mayomba nu war faa dem euh, euh, tawfiix production euh, donc télévision waaye ànd boog maa yomba TV Touba ca kanam ak euh, ñi nga xamante ne ñëpp rek euh, ay sit internet la ñuy fasatikoo sëñ bu Mbaye gis naa ko fi muy nekkoon conseil finance bu Ablaye Wade gis naa ko fi waaye lii lépp rek di ak cant goo xamante ne murit nañ sant Serigne Touba keroog la romb waa Indarloos machine ba rulle ba weesu Mandarloos Abdoun la capitaine Blé moo ko teeru ba woo Angleterre làkk yi tuuru yor yor la gaal ga tebbi jëm Conakry bisub dibéer noonu ya naan ngiri ngiri ca tàkkusaani suuf la gaal ga costé dun buñ naan tubak marañ yey konté foofa la Bamba njëkk a gisee kurmaana ak timili ku kurbo ñu néewi maana mu daal di romb akaraak waa Cameroun sa sandra la wàcc gaal ga ne fa ñuul waxtu la fa taxaw ñu liit mu déqi ilaa Conakry tubaab yay soqi mu dellu war ca gaal ga jaar limi jaar atami dem kotumi dem dawme ba bësatee Seex Bamba xëy dem dawme romb Lagos ca kaw tubaab yi armée fii la français yem soo yooyee waxtu Cheikh Bamba romb na leen mësta tiimal waxtu malaka ni maaliku inda daw mi maaxat kafaani utaata zaw mi keroog la daam tàbbi nag géeji Congo kab la ci la wàcc neema gongo boo déggee nag mu ne kab géeji Congo mooy bul fàtte ni kab moo frontière ak Congo Brazzaville waaye frontière ak fa nga xam ne mooy Mayomba suñ Cheikh Mbeng wax nañu ko sànq waaye loolu yëpp rek tubaab bi li mu bëggoon mooy kenn du fi tudd yàlla laa ilaha illallah kenn du ko fi wax kenn du xam alxuraan màggal gi du am kenn du xam maam Cerno Cheikh Ibra du am kenn du existé loolu la bëggoon waaye nag wala fi ne dëjjiñ ja fay na mbaal ja jéem tële nag gàcce dee ja kon mbokki jullit yi ñu dem déglu sëñ Alaaji ci njàng moomu àndandoo koog yéen lu xew ci cérémonie bi rek nañ ko àndal ñu ngi ziar ñëpp nag maa ngi fi fekk nag sama rakk ndeysaan soxna soxna Mbaye Mbaye Sène eh, sama rakk sama xarit moom mi ngi fii ànd ak soxna yi xam naa ñoom dinañ ñëw jël seen wàll ci kanam tuuti euh, def seen contribution ñu war a dem nag Mayumba et Murit ilaa Mayumba fa la ñuy waajale màggalu Sëñ Tuubaa gi Mayumba gisaalu sinni jaata baloru barkata kambaanu baana kuy tulloo barakata moom bi diw moo dindi moo di diina tuubaa bi inti diinoo bi diina la dindi ngooti diina Touba bi dinti diinooti diina leddi baa on kulangoon kaa ñanta inti in baaba too xaw si tuubi tuubi sariifoo ki ngoo tuubi sariifoo anta bintu ngoo ti ñaaji minni loo banna ay waali dindi ñowoyl to mbana bammele nooru ɗon naata taryaɓuɗi on tabibo ɗumna bammele nooru ɗon to simbo naata taryaɓuɗi on tabibo ɗumna arsunowa kursi yo dindi laalo arsunowa kursi yo dindi laalo si laalo jiita wo fulowo no bannaji saalu laata ridduwaanu orjinaanu musoolu laata bintuloru bannaji saalu laata ridduwaanu orjinaanu musoolu laata bintuloru bannaji saalu laata ridduwaanu orjinaanu musoolu laata wali laata الخلا وسالكنا للخل لي بر ما ينبغي